asalaamaaleykum gars yi naa leen daleen ak jaam ci Sen Sport 221 janvier dañu ñëw ak ci revue de presse bi daal di koy dooree fii ci réew mi kii di xibaar bii di stade quotidien suñu gaynde yi la xëyee gannaaw bi ñu amee ndam ci kaw Mauritanie muy gaynde locaux yi démb dañoo dal di Mauritanie benn bal ci dara benn but boo xam ne Lamine Camara mooy ki ko marqué may Sénégal ñu am victoire qualifié ci demi-finale yi muy loo xam ne Sénégal géej na ko def depuis 2009 mën nañu wax fukki at ak ñeenti Sénégal yeggul ci finalu lii di CHAN voilà gaynde amal nañu ko ni ki démb mu nekk lu am solo jamono bi nag Sénégal ki nga xam ne moom la war a dajal ci lii demi boobu boobule ñu ngi koy tànnal diggante Madagascar ak Mozambique ki képp koo xam ne génn na ci jongante googule voilà moo war a jano ak Sénégal kon Madagascar wala Mozambique la Sénégal war a am ci li nga xam ne mooy demi final yooyu le voilà nga xam ne war nañu ko amal ci bés yi ñu dëkkmal gannaaw jigéen ñi nga xam ne ñoom itam ñu ngi toj nga xam ne mooy tournoi A bi ndax fi mu ne nii kat bu ñuy xool la ñu jaar ak Guinée-Bissau ni dal di koy dóor 4 jamono bi Sénégal war daje ak ñii di Cap Vert ci final bi te boobu mu ngi war xew dimanche bi la ci la Sénégal war ak Cap Vert ci li nga xamante ne mooy tournoi UFOA boobule ñëw na ba tey ci wàllum transfert Nicolas Jackson ak mbirum Bamba bi nga xam ne semaine bi yëpp daanaka ñu ngi doon wax Bamba ay mbiram sotti na fi ne nii kat jooru Lorient la dal dinañu nañu koy xëy ba dafay nekk 10 d'euros bu dee mbirum Nicolas Jackson nag moom euh, mbirum nee na dafa kale ak Bournemouth voilà ak la ca Jumaasa Kamara wax yëpp képp ku seetaan vidéo bi ñu dugal démb di ci am lu gën a leer kon moom Nicolas Jackson ay mbiram sotteegul gaa yaa ngi yeneen i négociation ak yeneen i club comme niñ leen ko waxee ni ki démb voilà Bamba Dieng jour Lorient la ci jamono bi kayit xibaar bi ñëw na ba tey ci Europe gi nga xam ne jamono bi ñu ngi xaar ay affiche yu nag tey ji ñu am ñii di Eintracht Francfort mu nekk match boo xam ne kat bu metti lay doon voilà moo tax nee na na jamono bi ci pression lañ nekk ñu ngi xaar ñu dal di wane seen bopp waaye nag nee na xam ne mu ngi xew lay doon bu rëy rëy rëy ndax kat jamono bi dañoo di jëlaat forme ñu ngi commencé di jóg ndànk-ndànk gannaaw bi ñu wàccee club bu mel ni Villarreal Athletic Club Bilbao ñëw dal ci kaw Atlético Madrid fi ne ñu war a nekk ancien joueur Real Madrid jamono bi moo leen jiite di def lu am solo foofule kon foofu it match lay doon bu rëy a rëy boo xam ne ñu ngi koy xaar ci dimanche bi lee buñ jógee foofu nag dañuy dem bitim réew kayiti xibaar bi nga xam ne moom moo doon dégg maam ak ki nga xam ne moom moo dal di jàngal wàllum tàggat muy Mikel Arteta jamono bii nag ñu dal di joué bu rëy rëy bu métte métte waaye nag ki nga xam ne nag moo leen dugalal bit boobu mooy Nathan Ake bi nga xam ne ab Hollandais la moom moo dugal bit boobu may ñi di Man victoire ci mu nekk nag match boo xam ne ñoom gis nañu ne coono dëgg lañ ci daj balaa ñu am ndax Arsenal jamono bi taxaw temm la ñu def ki nga xam ne Nathan Ake nag dal dinay xam ne ne bit boobu ci tànku ndeyjooram comme moom ab gaucher la nee na mooy premier bii boo xam ne dugal na ko ci tànku ndeyjooram kon bii la boo xam ne bu spécial la ci moom beneen mbir bi ñi nga xam ne ca kaw ci bopp classement ba cinq points dox seen diggante Man City am li moom la tuddee Gaming Hand mooy match boo xam ne mu ngi ko téeji loxoom te ci yógu ko kon bu ñuy xool Man City ba fii ñuy waxee mën anytime léegi nag kayiti xibaar bi li mu xam ne mooy ñoom ñaar comme dañuy xëcc bopp classement ba dañu war a jonoowaat waaye City bu ko dóoree foofu dañu jàpp ne day ñëw sës ci kawam rek moo tax ne dóor yi nga xam ne City dóor na ko démb signal bu mu koy jox ñoom waa Arsenal di leen wax ne bàyyi leen seen xel voilà lu mu yàgg-yàgg maa ngi ñëw te loolu nag dina leer fileeg février bi nga xam ne moom la ñu dëkkmal ñu war a dajewaat ci li nga xam ne mooy English Premier League na mooy ñetteelu defet boo xam ne Arsenal am na ko ci saison bi maanaam bu ñu xoolee ci compétition yi ñuy football yëpp bii moom mooy ñetteelu defet kon Arsenal néew nañu ay defet voilà moo xam compétition yi ñuy football yëpp bu ñu ko xayma démb la ñu soog jël ñetteel bi kayiti xibaar bi ñëw na ba tey ci wàllum Everton gi nga xam ne ñoom jamono bi ci rëbb mu metti la nekk ci entraîneur boo xam ne moo war a kii di Frank Lampard mi nga xam gàtt ak ñoom yàgg na fa daal ràññee nañu ko fa waaye nag jamono bii moo war a tàggat Arsenal ndax ki nga xam ne mooy Marcelo Bielsa dafa dal di gàntal ndax moom kat dafa ragal jël équipe ba noppi ànd ak moom wàcc moo tax Crystal Palace moom jël na risque yi te fas na yéene liggéey ak euh, Everton ngir dal di koy téye ci English Premier League bi loolu nag mooy li nga xam ne kayiti xibaaru jàpp na tey ji la koy matal tey la ñuy li nga xam moom dafa ñëw ak ki nga xam ne mooy président bu Atlético de Madrid moom nag dafa exploité maanaam mën euh, ne mooy li nga xeex te loolu yëpp mu ngi jógee ci arbitre bi ndax kat nee arbitre bi kat li mu doon àtte tegul ko ci benn yoon te dafa jàpp ne dara taxul mu doon def loolu dul pression boo xam ne am na ko moom Gilles mooy xam mooy wax de nee daal ki nga xamante ne mooy Denis Ceballos bi ñu dawale ba ci soixante-onzième dafa waroon jël carton rouge waaye arbitre bi xam na ne boobu defee njumte wala muy dof doflu ba jox carton rouge kii di Denis Ceballos dana am coow lu dal ci kawam loo xam ne du xam fu mu koy waxee ji moo taxit mu dal di sëggulool jox Savic bi nga xam ne dégg nga moom taamu na jël sax ay carton rouge loolu moom ñun ñëpp xam nañu ko mu dal di koy jox carton rouge mu ne loolu dafa nekk mbir moo xam ne dafa jàpp ne arbitre bi daal dafa jëng tegul ko ci yoon waaye nag nee na pression la pression koy am bu loolu moom Gilles Marine moo ko daal di gaaral ndax ka nee na même li ma seetlu ci match bi mooy euh, toujours bu ñuy football euh, surtout si choc bi gis na ne ki nga xam ne mooy Antoine Griezmann ak Alvaro Morata gars yi dañu leen weq wàllu gune nañu leen kajj nañu leen def nañu leen ko waaye joxu leen carte leen benn carton rouge mu ne loolu nag nekk mbir moo xam ne maanaam moom mënu koo muñ voilà lu garaaw la te ñii di Real Madrid maanaam toujours arbitre yi leen di àtte lu ni mel dañu koy faral di def su ko defee pression yu def leen di dal ba nga xam ne maanaam sanction yi war yi ñu war a jël contre équipe boobu la duñu ko def loolu moom la daal di xamle ñu jógee fa daal di ñëw fi nga xam ne mooy Marca moom itam daanaka mën li nga xam ne mooy Dani Ceballos Dani Ceballos kat kayit moom dafa doon seetaan rek waaye fi mu gis nañu ko ñu ngi koy joué te nekk na élément boo xam ne daal bu am solo la ci équipe bi saa duggee dafay changer match loolu kayit xibaar bi daal dina koy indi nee na sax am na ay offre yoo xam ne jotoon na ko de yu jógee ci English Premier League bi waaye nag moom daf ko daal di ne dafay des foofu la xeex place ak Real Madrid loolu tam kayit di xibaar bi di Marca daal dina koy indi waaye Marca yemu ci mu daal ñuy tegal bi ay fiches yi nga xam ne xew na ci weekend bi le foofu la ci Espagne bokk na ci Almeria gi nga xam ne dafa daal dóor Espagnol ñetti bal ci benn waaye nag ñu gis ne eh, am na yeneen match yu a xew ne Cadiz bu Momo Mbaye war na jouer ak Real Mallorca bu Amad Ndiaye Diédhiou voilà boobu bu benn waxtu eh, tegale bu ñetti waxtu tegale fukki simili ak juróom doon itam Girona dina jouer ak Barça boobu 15 heures écart lay doon voilà boobu ñetti waxtu lay doon waaye itam Elche dina jouer contre Getafe loolu yëpp ay match la yoo xamante ni war na xew wala Getafe Real Betis Getafe Real Betis Elche ak Séville loolu itam ay match yoo xam ne war na xew ci weekend bile voilà foofu la ci Espagne loolu Marca moo ñu ko dal di xamal buñ jógee foofu nag ba tey dañuy wéy ci yeneen kayiti xibaar yi foofu la ci bitim réew bokk na ci sport ak Mundo Deportivo sport moom ñu xamal ne Barça moom tey ji dafa war a jouer de match boo xam ne xam ne nag nee na am solo la waaye nag ñoom amuñ ci problème nee ay rotation sax dina dina am li ñu tuddee rotation dina xew ci équipe boobu di Barcelone li ko waral mooy dafa am joueur yoo xam ne dinañ leen am temps de jeu match boobu nag nee ki nga xam ne mooy Ansu Fati moom la ñu ci place ki nga xam ne mooy Lewandowski bi nga xam ne jamono bi dafa am carton rouge xam ngeen loolu voilà moom moo war a ci li nga xam ne mooy jongante léegi nag nee na Barça ak loo ci mën a dégg ku ñu mën a am Girona la wala keneen gagné rek la war a def parce que li tax mooy match bi bu fekkente ne ñàkk nañu ko nee beneen catastrophe lay doon ci ñiri waa Barça ndax kat su boobaa gis ne seen rival yi di Real Madrid dañ doon gën a jege ci kaw ñu dal di am ndam moo tax gagné ko rek mooy li nga xam ne moo gën a wóor ñëw de tam ba tey ci Marcos Alonso bi nga xam ne nee na dafa dal di prolongé dina prolongé tam kayiti xibaar bi di sport dal indi voilà kon bu dee kayiti xibaar bi nga xam ne mooy Mundo Deportivo moom dafa am wata war ci am juróom-ñeent poñ ci juróom-ñeent fan voilà maanaam ci neuf jours ñu ngi xaar Barça dal di am neuf points muy ñetti match yi nga xamante ni bi tey la ko war a door ci Girona bi moom la war a janool bu ci a jano ak ñi di waa Real Betis jógee ci dal ci ñi di waa match yoo xamante ni bu ko gañee yëpp neuf points lay doon te yëpp mu ngi koy joué moo tax mu indi voilà neuf de neuf di xam ne loolu la xaar ci Barça mu gañee ñetti match yëpp su ko defee gën a dëgëral taxawaayam ci li nga xam ne mooy bopp classement bi voilà ne ñu ngi koy xaar ci ñoom

kon képp ko xam ne yaa ngi doon laajte Pogba bu yàgg ba léegi Pogba ngi noonu pare na wér na mën naa football ki nga xam moom itam doon na dugal ay bit yu bari ay jamono moom itam dellu si waat na mu nekk nag loo xam ne xibaar la bu am solo pour Juve ndax jamono yi yëpp ñu ngi dundi jafe-jafe gannaaw bi ñu jëlee ci ñoom 15 points dal di leen wàccee ba ci li nga xam mooy 15 ngi yëg sax ba ci côté 10e te it ñu ngi xeex ngir yëg ci mooy place u di nga xamante ni mooy top 4 bi ndax ki nga xamante ni moo leen tàggati Allegri dafa a xeex ba dem ci Ligue des taxaw tem bam dal di sotti moo tax kon élément yooyu dellu si leen dimbale ba ñu war a jàpp ci liggéey bi ngeen ñu qualifié ci ligue des champions yi comme ni ko kayiti xibaar bi daal di indee voilà yi kon loolu lañ gënoon mën jàpp ci kayiti xibaar yi di leen wax ngeen continuer di suivre Sen Sport 221 the best sport news channel